déggal Ibra Fall déggal Kawsara yëngatuna Seero Fall déggal barus ba dem ca Kaaba ga ñaan fay ca yallaaw yallaaw yaa rabbal asal bayti yàlla ma ngi lay dagana bis boo ma wërsëgalee ay ca yallaaw na naa la sant bare fukkeel ba muy asaka lu mu màkk màkk ba jël sunu la yàllaaw yàlla bi moom ci kun la mu wax man ko yaram dinaa la may fukki doom yi woo te yàllaaw abdul mutalib di baa fa ca kaabata nan yàlla noo di dinaa dem noonu na yàllaaw xam yàlla xam fa mu teg yeneen ba war na ku ne ku ko xamul yàlla bu nu xam ko ku yàllaaw xam yàlla xam fa mu teg yeneen ba war na ku ne ku ko xamul yàlla bu nu xam ko ku yàllaaw xam yàlla xam fa mu teg sëriñ Bamba war na ku ne ku ko xamul yàlla bu nu xam ko ko jàng alxuraan jàng xasida war nanu buñ ko deful du nu xam maam Bamba yàlla lu yóbbu ndey bàyyi jël maam ak waaye fi baax buñ ko jaamul dañuy perte yàlla yóbbu neej bàyyi jël maam ak waaye duñ fi ko jaamul dañuy peete yàlla ba si peente Bàmba la ni woo yaa mag yaa Bàmba la la kun fa yakun maam Bàmba moo ko moom ku baabaale yàlla kërël amini ma am lamina jiwa xare laawa Seex Bamba yàlla la laawa Seex Bamba yàlla la laawa Seex Bamba yàlla la laawa Mam Bamba yàlla la laawa Seex sa bamba yàlla woo oh. sa ana sa bay borom Tuuba se se sa bamba yàlla woo oh. sa bamba bamba bamba sëñ bamba sa bamba bamba falloo ma digal ngir ma way faw ma way mam bamba yàlla sa bamba bamba leen na ma digal man ngir ma way faw ma way mam bamba yàlla sa bamba bamba ramakaama borom firaama ren jaaraama ma faalu mbàkke borom firaama yaay borom makaama borom firaama ne leen jaaraama ma faalu mbàkke borom firaama bay faalu mbàkke am nga iman ndalal jaarama maam Faalu Mbàkke makama borom kiraama bay balama duma way keneen ku dul maam Bamba duma way keneen ku dul maam Bamba boo bëggee lay way mi njariñ wayal maam Bamba ku dul maam Bamba boo bëggee lay way mi njariñ wayal maam Bamba man de duma way keneen ku dul maam Bamba boo bëggee lay way njariñ wayal maam Bamba way kaleen soo bëggee loo way njariñ wayal maam Bamba am ngay makaama ne leen jaaraama maam Fallu Mbàkke makaama borom tiraama suba yi leere suba yi leere sambay bay su kay samay bay. yiruuree kay. ajay bay. yiruuree kay samay bay. su ma yiruuree. tax na Bàmba ne bismillah yéemal bila ma والأنبياء بسم الله يوم الوعد بلا مناي والأنبياء أمدالي رابي أيدين المرابي رمال بلا ابتداء لا شكر بلا كفر وهو النصير منه فداء لا فراق بلا فراق لو كتابي ما ata akarida lakasana lakaltijay matidal yaman safan yaman haman haman jaban bima widal asabil sudor alih umar كاس الخيار بلا كداي كلام سير إبراهيم فال لامبونغنيل بابا مدار لرنجدي نياي كمال nan ñu daale ay gëneel arama ndey Seynabu Njaay la soxna jaay royoti jaay ako masal waa njaara njaay sa jëf ji rëy na yaa kawe baame xibaar am njëppalë dawal na yaa lami kama ma ko ne baa ma ma la ma raasi ko jaa ko say pexe daatal ko yoon wa umri mu abara xam marit am na ngara bari murit maam Seex Rafal moo rey pexe Maxtaar yoori joor yanu ka jëm Mbàkke Kajoor Sëriñ Bamba yoon ni ko mam lamp daal ba cay fexe talaal daje Adama Gaye Asan Biram daldi jangoy ma wan ko ba ba mërmëre yàlla ci naan ko foofu xeel ma leen bis ba mbir ma woon fukki fan ci yeeru ko sit bi be la mbir ma woon lamp rëy fexe maam Cheikh Rafal amul morom takk na mbar um mel ni moom leeral na penk leeral na soow mu xal yoon bu ñuy doxee am lamp faal aboori jaal abay maam sa njaay yaa nu maam alal ateex baabil tareex akil wuta koloori daay soxna da ba mbaake sëñ Fallou Mbacke yaa daba Mbacke sëñ Fallou Mbacke afiya kamal nga afiya rijal nga afiya baybal nga siyaare naa sa jëmm kamal nga sa jëmm rijal nga jëmm baybal nga siyaare naa la sa jëmm kamal nga sa jëmm rijal nga ay jëmm baybal nga siyaare naa la ay taala kamal nga ay taala rijal nga taala baybal nga yaare naa la ma jóg te jéem a xamle timbar ma mira fa yàlla ma tegoon ci réew mi ma jóg te jéem a xamle timbar ma mira fa yàlla tegoon ci réew mi ma jóg te jéem a xamle timbar ma mira fa yàlla tegoon ci réew mi bismil ilaah ma walilah rasulillah xayrul anam rasulillah fàtti pël demanu yomal xiyaama nga jàll jaami maa jóg da jéema xam leeti mbër ma miro fa yàlla te gën ci réew gaañi loxo ci kaw bàkkaar si suuf mam seex rafaal yaa nu maam afiya kamaam nga afiya rijaal nga afiya baybaam nga siyaare naa la afiya kamaal afiya rijaal afya baibanga siyaranala afya kamanga afya rijal afya baibanga siyaranala afya kamanga afya rijalga afya baibanga siyaranala majote jema letimbarma mirafayala tegontiremu afya kamala afya rijala afiya bay banga siyaarana mam ummi kamal mam ummi hijaa ummi bay banga siyaarana mam ummi kamal mam ummi hijaa ummi bay banga siyaarana ko am sa soxla ummi jox la daamat ma taal réew am sa soxla mu jox يا أم دامت متى لرمي آفية جمال آفية رجال يا بيبانغا سيارنا آفية جمال آفية رجال آفية بيبانغا سيارنا فانجا لا إله إلا الله ما مسلفال دوسن مرو wane nga ko wane nga ko faal Amadu Faal seen yaayoo Biram Njaboot ma cangaal Sara Faal doo sa moroom wane nga ko wane nga ko faal Sanjaga laa ilaaha illallaah faal maam Sara Faal doo sa moroom wane nga ko wane nga ko faal Amadou Bal Sendaayo Biram Yoba ma candaay Sarabal boo sa borom wane na daay bayaneen bay takkal Ababacar gëgëla la Sëriñ Bamba di dagal sunu maam Cheikh Rafal bazur dake bazur dake fa Amadou ah. Bal Sendaayo biram na bama canga sarabal bo samara na day bayanal bay takal ababagar ragala la Sëriñ Bamba di dagal maam Seex Rafal ba sub daxe ba sub daxe ba Amadou Fall sangayo biram na wane no day bayaneen bay takal Ababakar ngir dëggal la Sëriñ Bamba di takal sunu maam serafal na jub dexe na jub dexe taara Madu ba semara wane nga dimbaloon daa wax ne mi ko moo ko maam Bamba moo la moom raasi ko jox ba taa Amadu Faal seen yaayo yiram jëbën ma cangal sarabal ko sa borom ba bëgg maam yu morom takk na mbaar yu maam Seex Rafal doo seen morom fee ak fa ñu jëm fële ñu jëm kaay Amadou Baal Sangayo Yiram ja doom jangaay maam Seex Rafal doo seen morom maam Seex Rafal amul morom sàkk na mbaar yu mel ni ma leeral na penku leeral na soo moo xal yoon bi ñuy doxe bi ñuy doxe paa Amadou Fall seen jaayoon yuram jabo ma sangaar ana soppe maam Cheikh Rafal maam yi Serigne Cheikh jëmm Fall maam Cheikh Rafal doo seen morom fii ak ba ñu jëm fële ñu jëm Fall Madou Fall seen jaayo yiram yëpp ma cangaal daan na jàngale tarbiya aka xamal tarbiya maanaam sa rafa doo seen morom fee ak fa ñu jëm fale ñu jëm faa Amadou Fall seen jaayo yiram ja bëgg ma cëngaay sa rafa doo seen morom fii wa fa ñu jëm dañoo naan ci biir lëndëm suñu afiya moo nu fa génne Ibra Faal doo seen morom fee ak ba ñu seen jaayoo jiram de ma canga doo seen morom wala neel ba yàlla dool leeral nga doy li ay nga ne ay nga ne faa Amadou Bar sanga yoon wiram ya doon na kanga jaarama Seex Ibrahima Fall lampo nga neel baaba mbata leeral nga diine yaay kamal yal nan ñu doon yaa gënal ay gënal baay Amadou Ba sanjaayo yiram ya ba ma tanga baal doo sa mara wane nga ko wane nga ko anjagala ila ila lay faal maam Saxra Faal doo seen morom wane nga ko wane nga ko baal Sunumaan sarabal doosan maram wane nga ko wane nga ko paa. Sarabal doosan maram wane nga ko wane nga ko. Sunumaan sarabal doosan maram wane nga ko wane nga ko paa. maam sara faal doosan morom wane nga ko wane nga ko faal sara faal doosan morom bilaay wane nga ko wane nga ko maam sara faal doosan morom wane nga ko wane nga ko faal sara faal doosan morom wane nga ko wane nga ko faal jëmm faal doo sa morom wane nga ko wane nga ko faal sarabaal doo sa morom lay nga ko wane nga ko yaa sal jamila yaa sal yaa sal jamila yaa sal anta la sila li sil xadaye fadila الجميل يا ذا القدر أنت الأصيل لذي الخبايا الجميل يا ذا القدر يا ذا الجميل يا ذا القدر أنت الأصيل لذي الخبايا يا ذا الجميل يا ذا القدر الأنبياء bayu mbeen ku am sa sax la moo jàllala ku am sa sax la moo jàllala sëñ Fallu daa mat ma taal ama nee na yaa man yaraamu daba boole da xalaatu faaret man la bal si faaye di la amanena yaaman yaramu dafa boole salaatu baarak man la bal si baaye tey ma jóg te jéem a xam le ma jóg te jéem a xam le mi raw fa yàlla te gën ci réew mi دربك أنت الذي لا لزل خدايا وديلا لا إله إلا الله تقبله محمد رسول الله ما بلو لا إله إلا الله سبحانه محمد رسول الله ما بلو لا إله إلا الله سبحانه muhammadu rasulillahi ma fall mbar gu mel ni kii waay sëñ fall dun am digga caay ma fall sunu bébé du nag saay ngir moom la ñuy kalaame ma fall way ku yàlla baaxal sëñ fall war na waaju am xel sëñ fall tuddee sa xel ki ñaanu ci sëñ fall mbaa nga doon ku réere ci maam Fallu abba mi doj jël be sëñ Fallu daa dajeg be maam Fallu réew mi xibale la fi na rek ku joore wër na yàlla a ñëpp naan ko Mbàkke sëñ Fallu nga bam ma Mbàkke sëñ noon ñu ñaan nga dégg yow Fallu fi na ji joore Alaaji Fallu rambu raf la dem nan ngir falo moo tuta sa ngir falo dellu yaa sañ mam falo dafay jalaare mam falo néegi ñaxi dem nan ngir falo tax yu foori ñëw nanu ngir falo léegi sax dañuy njoñ ngir falo ay ganaar di reere ci mam falo piis yu boor yu nuy sol suñ fàllo atte yaa nu koy jal maam fàllo saa su neel li nuy sol suñ fàllo lépp day valeure ngir maam fàllo ana sa bay baayu mbeen suñ fàllo ana sa bay baayu mbeen afiya mu fàllilo yaaram bi doomi yaay jal jaañ yaaram la karim maam fallilo bay fall bi naaru maam awa fay yaaram la ateex doomi fallilo yaaram bi mooy naaru bintu fall yaaram la daba maam fallilo yaaram bi fallu woonu na la yaaram bi ana soppey baayu mbeen sëñ fall ana soppey baayu mbeen maam fallo way ku yàlla baaxal sëñ Fallu war naa waajal xel sëñ Fallu ndéem soxol ki ñaan ci sëñ Fallu mbaa nga ku réere ci maam Fallu alli baayu ndéem yaaram bi baayu sëriñ Afiya yaaram la Afiya Fallilu yaaram bi Bamba wóolu na la yaaram bi may ni mbaa may ni le Seex may nu loo du nangoo maam Saliou ana soppay Sëriñ Saliou yaaram ba ana soppay maam Saliou yaaram bi Bamba ko jago yaaram afiya mu falilo yaaram lo ndimbalo ak yërmande Cheikh Ibra saabu dool la jafe fal njoge ndigal fal mu bàyyi góor yaaram bi xalifa daba njaay yaaram lo sëriñ Fallu baayu mbeen yaaram la baayu sëriñ Afia yaaram la may ni may ni leer Fallu may nu laa dul Fallu yaasal jamila Bamba ko wax yaasal fadila Bamba ko wax antal wasila Bamba ko wax lisil xadaaye sa bay maam Bamba yaaram be a sa bay sëriñ bamba yaaram e bi seydina mu jàmmaloo bamba ko wax usmaana mar xarxataloo bamba ko wax ndax waayu sañu raadiloo bamba ko wax kitaaba moo di lekk mi bamba ko wax ko weer dee lemal yaaram bi isaa di mbër moo manu gan yaaram la o ko weer dee demal la gan yaaram bi isaa di mbër moo manu gan yaaram bi yaaram la wute nag sagam yaaram bi Bamba ko ñaan ci xarnu be yaaram bi ana soppey sëriñ Saaliw yaaram be ana soppey sëriñ Saaliw yaaram bi may ni mbaax may ni le Seex Ibra may nu la dul nango fal njago may ni mbaax may ni le Seex Ibra may nu la dul nango fal njago ana soppey Seex Rafaal yaaram be ana soppe Ibra Faal yaaram bi dul la gëm di keneen Seex Ibra sa waay du xaat di feneen Faal njoge sa waay di ñëwaayu keneen Seex Ibra sa diina doy na xarnu bee Seex Ibra duñ la gëm di keneen Seex Ibra sa waayu gën waayu keneen Seex Ibra sa diine doy na xarnu bee Seex Ibra alal ateex baabil tareex bamba ko wax soo kullu ridaay bamba ko wax soo kullu ridaay bamba may ni mbaa may ni leer sëñ may nu laa dun nangoo maam Fallu yaasal jamiila yaasal fati antala asila liisil xadaaya wadila mama nee na yaa man yaram daba goole dab falaa du baar man la bërësi baaye xayrul anbiyaa may nu mbaa may nu leer Seex Fallu may nu laatu nangu Seex Fallu may nu mbaa may nu leer Seex may nu laatu nangu Seex Fallu may nu mbaa may nu leer Seex leeru leeru yaa ko moom Cheikh Fallou dënnum góor si karo Cheikh Fallou ndamal góor ndigala Cheikh Fallou sunu maam ummi Fall Baay Fall bi mbégum jaam ni yow la Fall njoga noo ngi ñaan dolli ñaan Cheikh Ibra maam ummi Fall yàgg fee Fall njoga noo ngi ñaan dolli ñaan bur yàlla maam ummi Fall yàgg fee Fall njoga nu ngi ñaan di dolli ñaan pour yàlla soxna ummi faal yàgg fee faal njaga ummi faal yàgg fee faal njaga bagaañi xam na ñuy doxee faal njaga ummi faal yàgg fee ngir yàlla bagaañi xam na ñuy waxee faal njaga yaa ummi faal yàgg fee faal njaga bagaañi xam na ñuy doxee faal njaga mam ummi faal yàgg fee faal njaga ba gaañi xam na ni waxe fal njaga may ni mbaa may ni la sëñ may nu la du nanga sëñ afiya sunu baay di yaay sëñ afiya yaa sunu waay yaa jaay sëñ afiya ana soppe afiya mu maam falo ana soppe afiya mu maam falo karim maam fallilo yaram bi falluwa ba fallina yaaram be dëggum jaam ñi yow la yaaram bi soxna daba fallina yaaram bi jaam ñi yow Fallu ana soppey sëriñ Fallu Fallu yaaram bi yaasa jamiila yaasa fate أنت الذي لا لزل خدايا بمبنين أنت الذي لا لزل خدايا أنت الذي لا لزل خدايا أنت الذي لا لزل خدايا أنت العزيز لذي الخدايا أنت العزيز لذي الخدايا أنت العزيز لذي الخدايا أنت العزيز لذي الخدايا أنت العزيز لذي الخدايا أنت الوسيلة لذي الخدايا دورت بالفرقان ربي المهين دورت بالفرقان ربي المهين دورت بالفرقان ربي المهين دورت بالفرقان ربي المهين دورت بالفرقان ربي المهين ملكت نفسي وزادت العين من الدنيا وذات الجنان القاتل قولي سفر الجنان ولا لي الأبرار في أخرايا هذا لي بلندي القرايا رافقني إلى الجنان جيما كل سوايا زجار جيما كرسي عن الليل وسجاري كون بديل العالمين جاري أكرمني بديو بالكتاب وسانني أجل بالكتاب هم لولي لا دون جنة رب سادة علي زلمنا لم ينهني ذكر ولا ويدا وهم مري إلى الجنان أيدا أفعل يسر المدون لا حبا ولا إله إلا الله هادني الله إنه البديع فهادني لو بيا الواحد البديع برأني هلو من سواه أدني من لا يرى سواء أنت أبرى بدني وكنت لو لله بي سكنت رسي عن الأقدار والمفاسد رسي عن الأقدار والمفاسد عبد منام مجر حاسما قاسم مجر عبد المطلب عبد المطلب مهجر عبد الله Abdallah boo jëy bayu rasulillah rasulillah Abdallah may bay ba yaay ja la tamit tudd la bay ba wuy ji borom mu juddoo yàggul lool jirim la ci bay moom jirim la yaay ya rasulillah teel a maam moom rasulillah teel a ñàkk bay moom sëriñu sëriñ see mooy rasulilaay yaakaari jaam ñee mooy rasulilaay ki gën ci jaam ñee mooy rasulilaay sango sang yee mooy rasulilaay góor géen yee mooy rasulilaay kenn mënul baax baraw rasulilaay kenn mënul leer baraw rasulilaay sëriñu sëriñ see mooy rasulilaay yaakaari jaam ñee mooy rasulilaay ku gën ci jaam ñe mooy rasulilaay ku sopp rasulilaay jógal màggal ko ku sopp rasulilaay jógal màggal ko jógal allo allah allah allah allah barke borom Tuuba kenn mënul baax baraw rasulilaay kenn mënul leer baraw rasulilaay kenn du bari leer baraw rasulilaay sëriñu sëriñ see mooy rasulilaay yaakaari jaam ñi mooy rasulilaay jërëjëf njool mata àndal ku laam doo dul ñàkk bay xaaraan jërëjëf njool màkka mata àndal